bi nga xamante ne euh, am nañ ko ci programme déjà dañ ci tontu d'accord nañ d'accord mais dafa arrêter dafa programme arrêter ñun nañ que ni su am nga 1000 francs marché soo demee marché war jënd li nga moom sa priorité Sénégal su 30 milliards fanweeri milliards nga xamante bëgg def scolaires pour am na yoo xamante actuellement moom mo gëna urgent mu di kat yi nga xamantene ne doyuñu mu di table bank yi nga xamantene également doyuñu mu di aussi souvent problème yi nga xamantene gouvernement bi mu ngi koy am ak syndicalistes yi mu di aussi problème yo xamantene suñu école mu ngi koy jankonté ci walum toilette ci walum ndox mu di yoo c'est des questions urgentes que 30 milliards yooyu nga xamantene ne ñu ko bëgg a euh, ci ay tonneaux scolaires war nañ ko mëna affecter ci secteur yooyu nga xamantene c'est les secteurs à problème pour que ñu mëna relever le niveau de notre système éducatif pour que tamit résultats yi nga xamantene élèves yi ñu koy am ñu mëna yokku donc pour ñun programme bi dañ ko war arrêter arrêté jël xaalis bobu nonu def ko ci ay secteur yo xamantene actuellement mérite na suñu attention. taxawaay bi ñu fas yéene amal mooy porter le plaidoyer.

moy ko ni dinañ profité wu ci période de vacances, bi di ci woowaale acteurs système éducatif yépp ñu man koo doon ben mun a xool nu ñuy adressé problématique yi nga xamante ne suñu école bi mu ngi koy jànkonte ba nga xamante ci ouverture école yu 2021 bi suñu environnement scolaire yi mun a doon ay environnement yu salubre yoo xamante ne école yi dinañ mun a am ndox yoo xamante ne également école yi dinañ leen mun a sécuriser kon nag président de la République waxee ne day joxe 10 milliards par an ci tenue dañuy war a wax parent d'élèves yi nga xamante ni ñu ngi ci organisation yi légal am seen i këyit réew mi di woote ak ñoom di wax ak ñoom bitim réew di wax ak ñoom ñooñu dañ leen ay woo ñu ànd ak ñoom déedéet buñ toog ba mu sotti ñu woo leen déedéet dañ ay woo ca tàmbali ba ñuy joxe seen xalaat dañ leen ay woo ci biñ koy doxal ñuy joxe seen xalaat dañ leen ay woo ci biñ koy xayma ñu joxe seen xalaat duñ nangu nag. milliards yi nga xamanteni nit ñi dégg nañ ko am nous yoo ne dañoo ga nga xam ne affaire xaalis rek moo ñu jox leen ko ñu ay ñu marché yi duñ marché yi am na ñoo ay sénégalais lañ demuñ bitim réew investir ci Sénégal di jël doomu Sénégal yi ñooñu di def ci affaire abima ñooñu lañ ne dañ leen ko jox partout au Sénégal ñu ngi ci Dakar ñu ngi ci Rufisque ñu ngi partout au Sénégal kon duñ nangu ñu jël marché yooyu jox ko ñeneen ñoo xamante ni seen xel màccut sax ci affaire habillement